messieurs merci de votre fidélité renouvelée à Sénégal set am mbégte bu baax a baax ànd ak yéen ci seen émission dañ leen di baaxoo di jox Scoop Magazine tey jii nag euh, am mbégte dalal kii di Tahirou Sarr xàmme ngeen ko xam ngeen ko Tahirou Sarr mu ngi nii tey jii mooy gan gi ru ma di la nuyu baax. ma jëla fay di rafetlu encore invitation bi ci kër gi. Mhm. di rafetlu tamit liggéey ma fekk. Mhm. naa ñuy waxtaanee Sénégal rek. mooy président mouvement nationaliste sénégalais jël euh, li ñu moom. noonu la de. tey de juumu moom. waaw tey juuma moom. <laughs> d' gis nga réew mi nag euh, actualité bi dañ koy def émission bi dañ koy def ñaari pàcc ah, benn bi ñu laal actualité beneen bi ñu laal Tahirou Sarr ak li muy yëngu. Mm-hmm. mais d' abord actualité bi on a vu enfin euh, Benno Bokk Yaakaar di la mouvance présidentielle annoncé ñu seen candidat à la présidentielle bett na la ki mu doon ak ni mu demee. non pertement et je pense que prédire naa ko donc euh, je j'avais dit que euh, candidat bi mënul génn ci Amadou Ba. Mhm. parce que au sein de benn Bokk Yaakaar Amadou Ba c'est c'est le candidat naturel de la coalition. Mhm. candidat naturel nag nekkul loo xam ne euh, maanaam Macky Sall moo koy décider wala leneen moo koy décider. mais maanaam format politique parfois day imposer nit ci benn moment. tout à fait te moment bi ñu toll nii ma yàlla Amadou Ba la la samp euh, biir. Euh, moo fi ne daal benn bokkekar voilà. wax ji nag mooy Macky Sall amoon na choix bañ koo nangu ñeneen ñi tam am nañu choix bañ koo nangu mais je sais que Amadou Ba la mu doon fal la mu doon tab boog la mu doon tànn. ci loo xamante ne PS du génn de même candidat AFP du génn de même candidat ñeneen du ñu génn de même candidat léegi nag euh, terewul comme ni ma ko waxee woon fissure dina am am na euh, waaw mais fissures yi euh, la question ci fissures yi mooy est-ce que fissures yi c'est des fissures théâtrales wala c'est des fissures euh, spontanées. waaw ah, loolu mooy la la question. c'est la grande question. waaw parce que am na ci bon xam nga soo xoolee biir benn bokk yaakaar. ñaari nit kese ñoo fa amoon ambition présidentielle bien avant le 3 juillet maanaam mooy bien avant Macky Sall di naan du ma nekk candidat pour une troisième candidature muy Aly Ngouille Ndiaye la ak Amadou Ba mm-hmm. ñoom kese ñu amoon de façon très très franche mhm. euh, maanaam bëgg-bëgg utu Macky Sall mhm. kenn kii moom ñeme woon na ko parce que Macky Sall euh, laajoon troisième mandat pare woon na pour démissionner dem mhm. mu ñàkk koo laaj pare woon na pour euh, pour dem muy Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye keneen kii moom daa bëggoon sibooru Macky Sall ba ba fin bi pour mën ko mën ko yellool muy Amadou Ba waaw te yàlla def na mu mu doon loolu waaw mu doon loolu ñi si des ñu bëri seen ambition présidentielle après trois juillet la la am te nekkul lu ñu prévoir nekkul sax lu ñu xalaatoon. Hmm. parce que ñoom dañoo gëmoon ne Macky Sall day dem pour benn troisième candidature après mu ñëw bert ñëpp ba ñoom seen biir. mais kenn laa xam ne moom pare woon na koo xam ne moom le 3 juillet pare woon na démission pour su Macky Sall ne day dem troisième mandat mu dem muy Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille ah, moom moom moom wax na Macky Sall carrément ne ko nga toog wala nga dem damay nekk euh, candidat mais mais demam ndax amul lu muy lu muy indi ci ci la mouvance présidentielle quand même bon bien sûr parce que soustraction arrangé wul benn benn ah coalition politique mhm. mais ce qui est sûr et certain mooy li mu bëgg saluer légitimement mhm. loolu droit am la effectivement parce que Aly Ngouille en 2012 dafa liggéeyoon pour nekk candidat yàlla xamale ko Macky Sall après il a préféré accompagner Macky Sall ci candidature am donc su Macky Sall demee ba def deuxième mandat jeexal ko c' est normal. mais lu Aly Ngouille di peser ba tax mu bëgg a nekk rebelle bi. non problème bi du question de peser question de maanaam mu am yéene ci ci ci ci ci dëkk bi la. xam nga lu am solo mooy nga toogal nga nekk sénégalais d' abord euh, nekk ku yéene askan bi ku yéene dëkk bi. Mhm. donc voilà mais euh, ñoom ñëpp sooy xool. seen bëgg-bëgg tamit nekk candidature tamit même bu dee altam bosam jiitu na. ñoo ñoom seen bëgg-bëgg maanaam pour rek continuité la en fait. Hmm. maanaam nguuru nekk ci système bi. di ci dund di ci bànneexu. Hmm. loolu kese la. amuñu benn programme du Aly Ngouille Ndiaye du Amadou Ba du keneen amuñu programme. la preuve ku ñëw da leen ay damay sukkandiku ci PSE Macky Sall. mais ñoom xam nañ ne PSE bi satisfaire u yi. PSE bi su satisfaire Sénégalais yi li am ci ginnaaw Sonko li am askan bi nekk nii ak immigration clandestine nii ça veut dire que PSE bi ça compte pas amul effet. moo tax suñu naan le candidat de la continuité. E continuité ci continuité la continuité maanaam foofu la ñuy waxee. foofu kese la toll fan la fan feneen fan la toll PSE kañ lañ ko tàmbali ba léegi. askan bi tey la gën a sonn. Mhm. ceeb tey la gën a cher diwlin tey la gën a cher et tout mhm. donc ça veut dire que bi tey la gën a cher. Mhm. kon ça veut dire que e bi lu ñu ci yaakaaroon amu ci liggéey tey la gën a ñàkk ci biir PSE bi. donc ça veut dire que PSE bi amul amul amul solo nag li ci am euh, lu ci malheur malheureux mooy que sooy xool ci candidat yi fi nekk yëpp kenn amu ci programme. du Khalifa Sall Khalifa Sall maa ngi dégg keroog dama bëgg sukkandiku ci non mais dama bëgg sukkandiku ci ñi may xalaatal c'est-à-dire que amoo vision pare woo pour diriger bëgg nga diriger tu as les mais pare pare woo ko du ci xalaat du ci programme c'est ça en fait qui est dommage te instant bi programme lañu soxla ñun mooy ba bas peuple surtout programme doo ko gis fenn fudul ci candidat anti système yi mënoo ko gis si candidat pro-système yi parce que pro-système yi ñoom ñëpp que mu nekk ñu nekk Benno Bokk Yaakaar muy Idrissa Seck muy Khalifa Sall muy keneen ak keneen ils sont tous dans la continuité continuer mooy maanaam toogaat fi du am la fi rek waaw mooy maanaam toogaat fi dëkkee baale jël justice étouffé ko naan su ma bàyyee nit ñi liggéey reddition compte am dañuy fan damay fayontoo te fayantoo ma après ñu kone di noos baalante ñi nga xam dañoo nekk milliardaire ci loo xam lu dul yoon kon ne di gën a nekk milliardaire askan bi di gën a perte looluy continuité waaye hmm. loolu kese la du leneen kon baax na ñun li ci kanam raw li gët campagne bi c'est pour bien bientôt mais en attendant gis nañu tamit keneen ci ñoom tey ji taxaw na ne moom génn na ci langue gi mooy Mame Boye Diao euh, génneem gi tamit euh, xaarandi woon nañ ko ah. bon man xaaroon naa ko dans la mesure où dama xam ne que Macky Sall euh, jiitalul Amadou Ba kese parce que li am tey nii sooy xool ci Mame Boye Diao maanaam théâtre la donc hmm. euh, oui que Mame Boye théâtre la non xam Mame Boye nekk na koo xamante ne yàgg na génn ci télé bi di ñeme ñeme lu Macky di jaay le rebelle et le contestataire au sein de des projets de Macky mais Mame Boye Diao man je je le connais Mame Boye amul fitam may ko mu taxaw si lenn loo xam ne Macky Sall neexu ko hmm. lu mu mën ci taxaw dafa fekk mu neex Macky Sall ba ci candidature am bi tey kon li diversion diversion la théâtre la mais tamit euh, dañ ci am benn benn stratégie maanaam dañoo bëgg. lan dañoo bëgg maanaam décapiter l' administration Pastef. xam nga soo xoolee Amadou Ba ak Mame Boye Diao si ñu wër Macky Sall ñoom ñoo gën a nekk maanaam en conciliation. avec les pro Sonko. ñoom la ñuy wax ne sax ay xaritu Sonko lañ. di ko assumer. Hmm. léegi nag dafa am loo xam da ci am maanaam nu ñuy mën a gën a di ñoddee di xëcc di wàññi doole Sonko ci biir Pastef te ñu ngi koy def ci suuf. am na ñoo xam ne instant bi nii voilà ñu koy def te ñu ngi leen ci wuyu donc euh, jarul tudd tur mais ce qui est sûr et mooy stratégie la dina marché du marché du marché parce que pour man lépp luy dem à contresens de la volonté populaire du am solo Macky Sall lépp lu mu mën a teg en chemin lép lu mu mën a teg ci stratégie du am solo parce que maanaam dafa nekk en opposition ak euh, volonté populaire bi te volonté populaire bi instant bi nii dañoo doyal ci système bi te dañoo bëgg système bi jóge fi mhm. te incha fi jóge kon daal ñun lii nii lépp ay ay ay ndaxe mbaay la ndax gis nañu génn nañ ko tamit ca fam nekkoon CDC. non loolu film la rek. mais attends Mame Boye Diao soo xoolee Kande Diop xanaa daf ñu rappeler rek Aline Petit Mbaye action 2000 candidat de jet setter la fi bëgg a nekk mais loolu c' pour voilà c' est pour amuser la galerie rek mais loolu du <laughs> du du du. wax non des jet-setters ouais voilà sànq j'ai vu les images j'ai vu des jet-setters dedans et tout donc voilà c'est en fait cest dire il faut qu'on sérieux <laughs> xam nga dañuy toll foo xam ne instant Sénégal dafa nekk ci benn tournant boo xamante ne il faut ñu wax ñi dëgg mhm. ñi politique dëgg mhm. mais tamit kuy teg ay pas ne serait-ce am na droit nekk candidat honnêtement mais na ko teg ci cadre maanaam lu sérieux mhm. mais pas ci loo xam maanaam day jouer film kenn man loolu je suis pas d'accord du tout Mame Mbodji c'est la ku am jaar la mais aussi candidature am elle mais kan mooy profité wu ci multiplicité candidature yi. Macky Sall parce que en fait xam nga soo dem élection présidentielle sooy xool candidat bu ëpp doole plus candidat yi du yokk moom day wàññi dooleem te heure bi nii ki ëpp doole ci candidature présidentielle yi mooy maanaam Sonko donc ça veut que maanaam plus ngay yokk yenn candidats yi surtout des candidats milliardaires de plus plus maanaam da ngay grignoter ci électorat c'est comme par exemple Macky Sall loolu doon éviter en deux mille deux mille dix neuf. 2019 Macky benn instant euh, c'est vrai que élection yi demel nu mu waroon mais amoon na benn doole boo xam ne nekkul moom la am nii ci 2024 bi ci 2023 bi mais donc ça veut dire su candidat yi woon moom moo ci gën a perte mais fii c'est le cas Sonko fii Sonko moo nekk en force donc su candidat yi et et puis ils sont dans ces Sonko bañ a bokk ci élection yi te dafa war a bokk donc maanaam dañu bëgg maanaam gën a nasaxal doole boobu noonu mais lu Sonko du personnage politique Sonko discours politique la. donc ça veut dire que même suñu demee parrainage ñoom seen socle électoral mën nañ ko am ci ci ci ay parrain mais socle électoral anti système bi ñoom dinañ ubbi seen bët dañ xam fu ñuy def seen seen ak dinañ xam tam ku ñuy xaar. Mm-hmm. moo tax Sonko namm naa la moom dañ koy tere ci réew mi de. bon loolu moom defe naa euh, yàlla moo ko moo may doole boobu Sonko xam nga Ousmane Sonko euh, dafa nekk nit boo xamante ne.